sukkandiku ci ay base yoo xam ne nii foog xel mi tijjiku pour nga mën a waxanteeg nit ñi te du wax rek jëf ngi ci xalaati ngi ci maanaam gëstu bu mag soo gisee ñu waxoon yonent bi iqra iqra boobu du jàngil iqra boobu mën na conserné la recherche gëstul loolu la théâtre ci te nag diine l'islam dara tax koo wàcc lu dul jikko doomu aadama ñun li ñuy liggéey ci jikko doomu pour que nit ki baax soppi ay jikkoom doon koo xam ni ci réew la bokk tey jëf lu baax tey wax lu baax di dox bu baax baax soppite nga xam ne ni xëcc ko am ko du parce que nag nit ki balaa muy xam boppam mu dund ci li muy xam wéy ci li mu xam waxuñu bul ubbeeku li enracinement et ouverture il faut s'enraciner

ak miin li ñu euh ay kidnapping mais depuis ba soppé di indi ay kidnapping ci le wayu yu gëna bari jeunesse bi lan laa leen di conseiller euh, dama jang ci La Fontaine mune la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage ma jangat ci ben borom xam-xam ngir affaire buzz boo yàkkamte bëgg buzz méfiez-vous de l'œil et de la langue, car plus l'œil admire, plus la langue flatte et vente et plus le bonheur se fait vulnérable et, s'affaiblit. Qu'on se méfie de l'œil et de la langue, parce que sont l'incarnation de tout, de tout ce qui est conflit au monde. L'œil et la langue. Olofne, ne